yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Sonko ak Sall càllala gi ñuy ràbb bu sottee du jur jàmm ci wàccal leen maanaam njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ak meerum Dakar ba woon di Khalifa Ababacar Sall li ñuy nas bu sottee du jur jàmm ci Macky Sall ubbi l'Observateur journal bi nee nañu ñoom ñaar gise nañu bërki démbu ci altine ji ci kër Khalifa Ababacar Sall foofee la gise ba amee woon Barthélemy Diaz moo dox audience bi la ñu fa doon waxtaane mooy nas ay pexe yoo xam ne moom la ñuy teg ànd ci ngir tënku ci ba mën koo ñàkkante ak kii di Macky Sall mbir yi mi ngi xeeñ ak alliance ci diggante Khalifa Ababacar Sall ak kii di Ousmane Sonko njiital parti Pastef Le Quotidien dolli ñu ci ne ab alliance boo xam ne li ko tax a jóg bokk na ci contre retrouvailles yu Macky Sall ak Idrissa Seck leneen li journal Quotidien gis ci boobi audience ba tax ki nga xamante ne moo di Khalifa Sall gise ak Ousmane Sonko moo di moom Khalifa Sall dafa bëgg a weddi ci kanamu nit ñi li ñu naan Khalifa Sall mi ngi gise ak di waxtaan ak kii di Macky Sall beneen journal bu gis leneen ca gise ba moo bi ngir wax leen seenum xel dafa nekk ci ma fekk si leen noppal leen seen bopp Walf Quotidien di ñu leeralal li Sonko Khalifa Sall doon nas ba mu waral ñu gisee keroog ci altine ji nee na dañoo jëm ci élection te ñoom ñaar ñëpp mu di Khalifa Sall di Ousmane Sonko xam nañu xëli na élection dees koy waajal moo tax ñu bëgg a booloo boole seeni seel daasandoo ko toog di xaar bésub mattante ba Barthélemy Dias ni ci xët mu njëkku libération li waral giseb Khalifa Sall Ousmane a moo di ndaw si jiite enseignant APR yi ca diwaanu Pikine salfaañook jaxasoo gi am ci biir réseau national des enseignants APR la ndaw si bëgg mu jeex ndax kuréel gi mën a delluwaat ci liggéeyam dellu ci la ko santonoon la ñu ci yaakaar mu daal di koy amal jàpp na ne ngir loolee mën a nekk moom rek mooy ki ko mën a def yéenekaay bi bind ne ngenaar génn na ca noppi ga mu ne woon taxaw fipp di revendiquer réseau national enseignant APR borom APR di Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk anki dinekaay ralliement yu loolu la yéenekaay bi xëy di waxtaanee journal bi tegal ñu ci ne Macky Sall mi ngi teg ay jéego yoo xamante ne ji leerul ci bopp kenn kenn ci ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique di professeur Moussa Diaw di ñu wax ci journal bi ne Macky li muy def li ko ci dugal bokk na ci xariti démb mi lay bañ ñu wëlbati ko doon ay nooni tayam tey soleil national moom président national la xëyee raaya bi ñu ko tuddee jagleel ko wàllum gëstu di prix Macky Sall pour la recherche di xalaat bu tukkee ci waa Kames journal bi nee nañu moom lañ doon xewal ak di ko joxe démb ca jam ñaajo soleil national ne ñu kàddu yëfa président Sall yëkk yëkkati bokk na ci di sàkku ci réew yi Afrique yi ñu jàppale bu baax a baax wàllum recherche source soo mel ne ku naan ñu moom day ma nga cee jàpp bu baax a baax ak compal bu duun ne ginnaaw juróomi téeméeri millions yi nga xam ne jagleeloon nañu ko deuxième journée scientifique bu CAMES président Macky dolli na ci démb genn wàllu milliard maanaam 500 ngir jàppee ko ci koppar yi ñu jagleel prix Macky pour la recherche réew mi quotidien nañu njiitu li moo di wàllum numérique am taxawaay bu mat sëkk ndaje ma jooytu na fa internet beeg ni mu seeree ci réew yi ndax gis na ne mooy li waral cooxe gi am ci wàllu développement numérique sàkku na it ci compagnie télécommunication yi ak ci opérateur téléphone yi ci réew mi ñu góorgóorlu ba wàññi njëgu connexion bi ki mu connecté bu yàggul moom Macky Sall di Idrissa Seck euh, budseem ak yokku ga ci am ca conseil économique social ak environnemental ak it Aminata Mbengue Ndiaye mi ñu yokkal budseem ci a jënd ca conseil ak it ay bor yu ñu ne dañ ko war a fay ci au conseil collectivité territoriale terewul ñu bari gis nañu ne du farata rawatina ci jamono ji nga xam ne coronavirus bi tax na sikkima lakkandoo ci wàllu koom arène nationale bi ñu tëj daanaka juróom benn benn weer ci weer wi les éco nee nañu mooy bëgg a yëngal ak lu làmb li ñu bëgg moo di ñu tijji arène nationale bi duuju daan jékko nañu ci yéenekaay bi bari na yu ñu tëjoon ci réew mi ndax coronavirus bi ba ñu leen tijjee yàgg na ba ci boîte lan moo tax ñu tëj arène bi bëgg ko fa fàtte du daan jékko ne duñu ci ci waxtaan ak ñëpp bu ñaxtu manifester ngir ñu ubbi arène bi